nouvelle yi nag du à chaque fois lay naqari tey am nañ benn bon nouvelle comme bi nga mujjee annoncé mais laata nag ñu ciy dem dañuy rek dem xool li nga xamante ne économie sénégalaise wala économie mondiale sax xëy na risqué na ko ci troisième vague bi nga xamante ne asma kenn xaaru ko woon mu ñëw nag euh, gën a gën a yëngal yëf yi bien que metti na mais mu gën ko mettil alors Xaadim Bamba lañ ci àndal mu wax ñu lan rek la économie bu Sénégal di risqué bu élément bi yembee dañ ci ànd ak Mame Sidi Diop ak Bakary dem jëli ko desiwaat léegi léegi. dénk wàllu tourisme ak transport aérien di Alioune dal daal dina rek taxawal comité de coordination bi nga xamante ne moom mooy yëngu euh, ci ubbiteg ligne Dakar New York bu Air Sénégal ligne boobule di lëkkale Dakar ak New York dina ubbeeku kon ci ñaari fan ci weeru septembre bi ñu dëtmal ñaar ci ay vol A330 néo ci ayu bés bu nekk bu ñu bàyyee xel économiquement ñun loof nañu sonn nañu ndaxte damay naan souvent boo xoolee suñu économie nu mu tegoo euh, ñi yàlla may ñu am barke xëy na virus bi bu fi yàggee dinañ am amoon nañ lu ñu denc mën nañ koo génnee waaye ñi nga xamante ni teggi teg la ñuy def dañu liggéey tey dund tey ñooñu euh, bu virus bi yàggee dinañ xaw dinañ xaw a sonn loolu donc dëkk nag boo xamante ni euh, dëkk bu néew doole nga mooy yow sa dépense doyul sax ngir sa nga dundal sa réew ñun bu dara xewul mënuñoo dundal réew mi pendant trois cent soixante cinq jours dañu lépp di dolli donc bu dara xewee donc day gën a métti ci ñun. moo tax il faut que euh, état bi xam ni métti na ci moom parce que état yi suñu état yi sonn nañu essoufflé nañu euh, lépp nañu euh, boo xoolee ba ñu commencé rek état bi dafa génnoon mille milliards. état bi dafa comme si dafa jàppoon ni course de vitesse la cent mètres la rek ñu daw ko mu jeex alors que mbir mi course de fond la. donc problème bu structurel euh, mënoo ko indi réponse bu conjoncturel donc loolu bokk na ci premier problème yu ñu am dañoo gaaw a indi réponse bu gaaw léegi réponse boobu nag crise bi dépassé na ko te amatuñu ay moyens pour topp ko moo tax euh, li ñu war a def ñun ñëpp mooy indi responsabilité indi discipline pour jéem a xeex ak moom virus bi donte dina metti dafa am yenn secteurs yoo xamante ne nag ñoom ñooy gën a sonn ci virus bi ndax dañuy gis ni ñoom seeni revenu yi ñu daan am day wàññeeku bu baax te seeni charge day yokk ndax xam nga boo nekkee ci euh, dans le commerce nekk ay jaaykat nekk dans le restaurant nekk ay femme au foyer euh, nekk mécanisiens yooyu liggéey yooyu nga xamante ni ñoo nekk ci informel bi yépp xam nga ñooñu virus bi da leen di attaqué bu baax a baax bu leen attaqué nag ñoom liñ daan am day wàññeeku. te seen soxla day gën a yokk ndax bu crise amee rek ku ne da ngay denc li nga yor donc biens yi mën na commencé cher tuuti boo xoolee Sénégal prix ñu ngi commencé di yokk ndaxte euh, bu prix di yokk yow la nga daan am wàññeeku donc da ngay nekk ci tension. justement un réel problématique. voilà Asma fi mu ko jeexalee moom Khadim Bamba. <laughs> Ça fait pas rire ce qui fait rire le plateau c'est justement le xoyom xoyomi du bonbon de professeur. <laughs> merci Mame Sidi. asma yàlla nañu yàlla may bayree tàngal mag ñi sax dañuy dañuy dañuy tàngal daal donc voilà. ayca ah, ah. boo paree sa tàngal ñu dellusiwaat suñu économie asma dégg nga ko Xaadim Bamba ni mu ko waxee nee na nag économie bi ñun dañ na bëreel rek ñu foog ne dañuy daw 100 mètres euh, mu jeex ndeke yoo ay yeneen mètres yu bëri mu ngi ñuy xaar jamono ji ci lañ toll ginnaaw ba nga xamante ne génne woon nañ koppar bu takku teg ko sur la taabul te ba tey jii euh, ñu ngi delluwaat ci période incertitude boo xamante ne Covid 19 bi kenn xamul kañ la fiy jógee asma moom nee na bu dara xewul sax réew yu mel ne suñu yos yi dañuy sonn lool waaye at bu ne dinañ am lu ñu leb ngir rek mën koo euh, jëfandikoo bu ñëwee nag coronavirus bi yokku si ba nga xamante ne sikkim yëpp a lakkandoo ku ci nekk sa bopp nga tal tey jii ñuy ut ku ñu euh, fayal suñu sikkim dina xaw a metti leneen itam loo xamante ne souligné na ko asma mooy dafa am ay emploi vulnérable yoo xamante ne ay taaba taaba la tey jii ñooñu bu fekkee seen liggéey dafa taga bi asma nga gis yenn produit yokku loolu itam day jur yeneen tension en tout cas mi ngook euh, je pense que loolu mooy nekk euh, l'actualité même hein, en ce moment que ce soit économique ou même euh, <laughs> sanitaire mu di coronavirus nañ ko moytu rek bu ko defee lépp delluwaat ci place am ñu àddu rek ci focus bi nga xamante ni mu ngi waxtaanee mbirum c'est euh, c'est Air Sénégal n'est-ce pas voilà Asma Air Sénégal nag namu nañu ibi li nga xamante ne moo di ligne buy dem Dakar New York Washington loolu nag comité de coordination bi nga xamante ne xëy war a poser les jalons euh, jëwrin bi ñu dénk wàllum dem beek dikk bi ci wàllum jaww ji moom nag installé na ko li mu xamle rek mooy euh, bëgg nañ ko ibbi niki 2 septembre 2021 dina am ñaari vol yoo xamante ne euh, semaine bu nekk dinañ fa jógee dem ci réew yooyu le mu bokk ci à 330 néo yi nga xamante ne xëy na ñoom ñooy effectuer le voyage leneen i tamit asma loo xamante ne xamle na ko nee loolu li ko sabab rek mooy fexe ba nga xamante dem bi yomb euh, ci suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk fëre ca réew yu États-Unis mais tamit comité bi dina def kéemtalaay kàttanam ngir rek jaay destination euh, Sénégal ci réew yooyu nga xamante ne moo di réewu États-Unis waaye itam institution yu États-Unis yi nga xamante ne ñoo basé fii seen personnel dinañ mën a jël yooyu le vol euh, donc Air Sénégal mën nañ jàpp ni asma tey mën nañ leen tàccu de bravo tàccu comme moom la ñuy xëyee ak Hache euh, Ahmed Aïdara nañu leen tàccu bàyyi sax doo leen tàccu yow. absolument eh, Sénégal dañuy eh, ubbi ligne bu bees bi dem ba États-Unis yàlla na yokk. amiin waay yal na yokk ah, yal na yokk yal na yokk yal na ko yàlla sécuriser. allahumma amiin yal na barkeel yal na yàlla def si yiw benn Sénégalais benn cee loru ak keneen ak keneen ak keneen yal na jàmm di si am amiin amiin océan Atlantique daa yaatu mm-hmm. bare bagage mm-hmm. ndox la géej la lese mm-hmm. ne dafa bare amul banque c'est à des milliers de kilomètres ci suuf yàlla na yàlla sàmm Air Sénégal ak compagnie yëpp ba ñuy traversé di jàll di dem di ñëw xam neel ne fii Sénégal Air Sénégal bala dem États-Unis lu tuuti la ci sunu ay possibilités. Mhm. ci sunu lu ñu yàlla defal ci barke. Mhm. Mhm. nous occupons le méridien de Greenwich. fii képp ka xam ne daa traversé boo jógee Europe boo jógee Amérique. très bien tour de contrôle bii nekk fii Léopold Sédar la orienté. très bien loolu la yàlla defal. en tout cas mi noonu di leen féliciter au passage Binta Ba di la féliciter aussi euh, contrairement ma ci ci coupe carré bi. di leen bi ñun ñëpp di remercier Ndeye Khady Diouf si bi Lamine ci montage bi waaye itam Didi Madivar moom moo jaar ci bopp bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax. mi ngi kon nag dañu koy jaajëfal daal di Darkepé l'actualité économique euh, aujourd'hui avec Bintaba tonton Fall njaga euh, tonton waxoon nañ ko fii mhm. moo di kaw Lobé Ndiaye mi nga xamante ni ren di nañ ko ba sàndiwoon ko fële Dakar Arena mhm. euh, di masaw seen waa ñu ñun ñëpp gis nañ suivi bi dëj bi ak linimel ni mel jamono ji fuñ ci toll jërëjëf euh, euh, euh, korog bi ñu fi mujjee wax yaakaar naa ni wax nañu ñaan nañ ñun ñëpp ni ki ko def yàlla na yàlla na feeñ yaa ngi koy fàttali këroog maa ngi wax ni ki rey lobe mhm. tey buñ ko jàppoon du bett kenn Euh, ku ñëpp di xam la ku ñëpp di xam ni euh, ku jige woon ki nga xam ne moom mooy moom mooy lobe. Mhm. Euh, gis nga li ma ciy doole rek moom mooy damay féliciter waa Kër Lobe ndax gendarmerie def na ci lu lu lu rëy di féliciter commandant Meng mi nga xam ne zone est bi moom moo ko moom moo mooy mu rëy liggéey ci liggéey bu am solo moom moo nekkoon brigade de recherche moom commandant Meng.